Okay, mbokk yi ñuy bàyyi xel alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw ba sante yalla jullu ci mustafa alayhi salatu wassalam sante ka santar ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba khadi rasul delu di ñaanal sahibul fadila Sëriñ Muntaxa ibn Cheikh Mamadou Basir di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala may ko fan gudd lool bu and ak ba lepp limi naal di yene ci yoonu Cheikhul khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom subhanahu wa taala defal ko ci lu kaw njortam ci barakati Cheikhul Khadim waaye noonu ñu la ñuy ñaanalee sëriñ Amdi Modou Mbène Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baab Mouridina waaye tamit di ko ñaanal mboolem xalifa généraux boo xam ne toog na toogaayu waajuram mbaa mu toog toogaayu maamam maa ngi koy ñaanal ndono noonu na ko sa borom sàmmal te làqal ko ko fu yàqu jublu ci barkeb Cheikhul Khadim di nuyu mboolem xalifa généraux yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi kenn ku ne eh, ci la nga ado ak ni ngay ñu ci ado ja maa ngi lay nuyu bu baax di ziarra euh dina la ñaan baax di sax ci yow ñu del si ci seen chaîne bi di Gninguène TV eh, ngeen and ak ndongali mustapha Moustapha Bassirou may wax ni ngeen abonné te bëss ko la su notification ngir lepp lu dugal ngeen mën ko am en temps réel parce que fi nak ci ngeen mëna jappé jàppe ci combat bi di partager vidéo yi aussi timi di ko seetaan bam jeex tey lu waay bëgg ñu def ci waxtaan bu ko commentaire incha allah danañu ko liir danañ ci indi ay maw donc yow ma waxtaan ci ngeen soob na yàlla suñu borom indi ci ay laaye biirante yu ama am solo bu neexee yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon su ko defee yooyu day am solo lool tey dina mën a permettre ñun ñu tamit liñ bëgg ñu nit ñu mën koo am incha allah rabbi incha allah kon ko defee ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax incha allah rabbi kon ñoom ngi leen ci sant bu baax di leen ci jaajëfal te damay ñëw ci benn yoonu nopp ci lay waxtaan tey nopp ci tàngal ak nopp ci wàllu bépp sukkar ci wàllu sulmaani yu bu ne sulmaani yu nag mooy xam-xam boo xam ni amul saalaali amul waalaali su ma nee amul saalaali amul waalaali mooy amul saar boo ci def amul jat amul dara donc dinañ ci ñëw incha allah rabbi ngeen soob na yàlla suñu borom subhanahu wa taala ngir indi ci ay bayaan yu am solo ngir yaatal ci tamit suñ neen noob nag mooy maxabba mooy wàllu cofeel ak bëggante xam nga leen ak ñun ni wal xaytu ma mahabbatan min nii mit nii jooju nag mooy ci man ci man ku ko wax ci man ngay waxee maanaam bëgg gi ak yëg-yëg bi mit nii mooy moom mooy ci man daal ci gàttal dinaa ci ñëw incha allah rabbi joxe ci waaye nag ñu ragal ci yàlla suñu borom tey bàyyi xel ni lépp lu am ci kaw suuf mbaa lépp lu xew ci coobare suñu borom subhanahu wa taala lay doxee waaye bu ci kenn nopp koo xam ni takkoo ko soxna mbaa du sa boroom kër kon nañu xool ñaari way dencante yi nga xam ne dañu bañ seen diggante am jafe-jafe ñu def ko na fekk nag mu gënal leen bu leen gënalul jëru def soit que da ngay xalaat ni sa jëkkër xalaat nga ni am na leneen lu war a dox seen diggante ba gàllankoor am seen biir bu la neexee yow mi jigéen nga def ko ko mu gën am ci yow cofeel waaye gën am ci yow tamit ak bëgg bu fekkee ku jigéen ket ku góor ket dafa xalaat ni jabaram ji mi ngi wàññi mbëggee la ma ngi ruus moom waaye nan na ko toppatoo bu ko defee suñ borom man nako ca dimbali momit ala kulli halin rek mu am ci lu sedd xolam am ci lu kay ndortam kon xamna naa damay jël ñaari xéti tàngal yi mën na ko bu rek man nako sax waye dafa fekk ni tàngal yi begg ni ci man motax kon begg ni na ci man nag mën naa jël joxe ci exemplaire donc sax xamna ni du ñak publicité raxaale ci waye mu muskil tangal tangal rek la comme benn façon bi ak benen façon bi ak it aussi benen façon bi même man nako mint man nako bepp tangal bu mu doon rek tamay tangal nga xamni ne xasse xasee ci mu yi kooku mom man na li nga xamni mom la bëgg wax ci côté tànga bindal après dina ci ñew bu neexee ya rasul borom subhanahu wa taala kon su ko defee rek ma fàttali leen abonné leen tay partager bi bëss cloche notification bi ngir ngeen mëna jot lepp lu fi nekk ngeen ko am en temps réel day am solo lool parce que lool nak mënta ñak ñàkk ci seen bi yéen it ngeen ci japp di japp ci combat bi japp ci combat weesuwul seetaan vidéo yi ba paré diko partager maximum ñu mën ko sétan inshallah rabbi bu ko defee mu gën a mën a yëngu gën a mën a dox bu baax baax baax inshallah rabbi ma ngi tud nak sëñ bu mo waxa japp jàpp mom yaaka na naa ñëpp jot na ci wàll fi mu doon tamit nii li may wax nag yoonu célibataire neeku ci mariya yi moma tax di wax nga tak sa soxna ci fara yalla sunu moom it ngay bañ galan ko am ci ma rek rek ma jafe-jafe bo xamni ne ëllëgati si pour séparation mëna ci am da ngay programme li ma lay bëgg wax nga bàyyi bu xel pare maanaam sedd ko sóoraale ko bu baaxa baaxa baax moy benn bi euh, tàngal bii ma doon wax sànq nii moo xam muy bii wala bii wala tàngal bii ma yor nii nii bii tamit aussi da koy daj bu dem màdd fraise bi wala comme tàngal bii da nga koy daj ba mu daj ko nga téye tàngal bi nga jàng ci baatu la yastaxlifannahum 77 fois 77 fois la yastaxlifannahum nga jàng wal xaytu xalayka mahabatan minni bu agsee ci baatu minni nga ne ci man tuddu turu ku jigen ki nga bëgg nok wala turu ku goor ki nga bëgg mu jublu la nga def ko mom 77 fois nga tiflo ko ci tangal bi bu la xassatal bam jublu nga fexé ba macc ko xam nga deg dégg ni ngi nan lamu saf ko ko macca ko xam waye sa bu xasee tàbbi ci biir gémmiñam ba jaxaso aw lorom ba mu jaxaso dretam ba tiaf go gogu ne ci làmmiñam mom dootul ñam dara mu saf dara lu dul yow ci gàttal bi ba ma ci kàddu bi dama ma ko waxee bu ñu ko déggee leneen lépp lu mën a xew ci kaw suuf dana la fonk fonkin woo xam ni te aussi dana la bëgg bëggin woo xam ni maanaam foo ko takk romb na ko kon su ko defee loolu tamit mat nay bàyyi wàlla xel bu baax a baax baax dama ñu la l'instant li fa na xam nga ci jàng 77 fois wal xaytu xalayka mahabatan min nii baat min nii jooju ba ca àggee nga ne ci man comme diw sàngam na ma jublu yaa xam noo ko ñaan rek ci man baa ma ko 77 fois nga ëf ko ci tàngal bi tifli ko ci laxasaat ko fexe ba diw moomu tàngal boobu dugg ci gémmiñam maanaam su wàq bu màcc ko bu dee ñaari way dencante sax la bu la neexee ngeen seex ko yéen ñaar boo ngeen dee ñu baamu ci kàddu gi bu ngeen tëddee su la neexee yow nga seex tàngal yow maanaam jox ko ci sa gémmiñ nga xool ba mu fexe ba màcc ko moom mu rees ak moom nga xool du ma ni dootu jëlee kàddu goo xam ne dana naqari waaye lu mu bëgg a jëfati ci musiba mbàbb kumba yow du la ca boole. benn xeetu mahabba la boo xam ni foo ko takk ci wàllu mahabba romb a ko yàlla xam na loolu comme neex nag mën nga ko daal gerbu waaye nag nañ ko jar bu ci lu ko jar jar bu mooy isee buñ ko def ci seen i gan buñ ko def ci seen i far ñaari way dencante moom a tax di wax yoo xam ne bëgguñu seen diggante jeex te aussi bëgg nañu seytaane ba ñuy dox seen diggante wala ñu tas ko wala leneen ak leneen xew ci incha allah rabbi loolu laaj jubloo leeral waaye waxuma nag benn célibataire di ko def wala benn taxawaalukat boo xam ne diggante entre far ak gelle tàngal yëpp ko man yi nag dafa béggandi ci man rek moo tax ma def ko nii waaye yëpp ko man incha allah mboolem tàngal yëpp ko man a beneen bi may joxe wax Euh, jigéen ñi rek ñoo ko mën a utiliser mooy da wut benn bekk suukar nga teg ko ci sa coiffeuse wala sa kamoon ça ne fi nga xam ni tey jii boo sëyeeg sa borom kër ba pare di nga ko mën a jël wala di ko mën a jóg dem jël ko yaa xam daal foo ko mën a teg ci kër gi fu mën a nekk baax na bekk suukar boobu noonu boo jaxasoo sa boroom kër ba pare man yi bi nga xam ne mooy génnee ci moom di génnee ci yow wala yow mi jigéen bi tooy fexeel ba bekk suukar boobu taq fexeel ba taqal ko man yi bi wala nga fexeel ba taqal ko li nga xam ne mooy mooy rapport bi nga doon def li génnee ci moom ak liy génnee ci yow fexeel ba bekk suukar boobu nga suukaree ko ko café soit que mu naan ko wala meew wala nga ñarale ko comme soow lu mu mën a doon rek fexeel ba mu dugg sa gémmiñu borom kër nga xool moom dootul am sago tamit ci yow xam nga ñu baal ma xam nga góor am na fu muy àgg li yi naan day kebatoog day day jabasoog day saagaat yooyu ñàkk sago googu muy àndal yow noonu lay mel ci yow ba dut am sago ci si maanaam maanaam maanaam mu sa jëm xam na loolu am des fois nit góor am na fu muy àgg daanaka daanaka maam day kebatu kebatu benn murum murum jooju noonu soo ko defee lii ma lay bëgg a wax maanaam noonu lay ñàkkee sago tamit aussi maanaam ci yow loolu beneen la boo xam ni na ko ñëpp bàyyi xel incha allah rabbi te di ko séddu te di ko sóoraale te xam ni wàllu maxabba la boo xam ne moom it mari di tali waaw loolu moom dama ne woon naa leen ko baaxee ngeen bokk xel ci tënk mm, euh, la ko ko mooy di wax ni ngeen abonné ci seen bii di ñu TV bi te bés ko la suñu te yaatal ko ba ñëpp ñëpp ñëpp man te jot ci kàttanu yàlla suñu borom ak mbaaxam cuuraay bi am na fi incha allahu rabbi cuuraay Moustapha Bassirou bi cuuraay bi am na fi ndox met c'est la même chose am na fi incha allah boo ko defee gars yi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax képp ku ci bëgg rek bu neexee yàlla suñu borom loo ci bëgg des rek mën a wutal xaaral ma ñu présenté leen jël pot ok cuuraay bi moo nekk nii moo nekk nii ci pot bi publicité bi sa yaakaar naa mi ngi ci biir YouTube bi cuuraay bi ci wàllu sayaatin lay dox ak wàllu liggéey ak wàllu def-def maanaam kër goo ko suur bépp liggéey bon bu fa nekk da koy toj waaye nag xale ba am 5 jëm suuf du ko suuroo jigéen bu toll diggante di ko suuroo en même boo ko suuroo lépp lu la doon yàqal mën nga koo gis bu fekkee nit ku set nga ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax kër goo ko taaj képp ku fay doon yàqkat maanaam di nga ko xam te aussi dootu fa bari tànk nit ku setu daal dootu bari ay tànk. bu defee ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax moom cuuraay mu nekk disponible na nag fii ci Kër Massar arrêt 71 bu njëkk bi donc après dinañ baaxeewal numéro téléphone fii képp ku ci kii incha allah des na la ko nuyu moo xam nga bëgg lu listixaar wala mboolem xeeti lasraar yi xeetu ñaan bu mu mën doon rek incha allah loo ci bëgg rek buñ déggante foofu lañ ca mën danañ la ko wax buñ ca mënu dara ñu ne mënu ca dara wante dogalu borom bi subhanahu wa taala incha allah rabbi ndox mi am na ok léegi ndox bi tamit xam nga amoon na saabu bayre bu ma doon liggéey saabu ba léegi moom laa modifié def ko ndox ndox bi parce que saab bi damaa gis ni daraan yàggat gaa yi lool <laughs> parce que dañu daan sakk na moo tax ndox bi en même temps bi ma ko defaraat dama ci boolaale wàllu xéewal ci côté wërsëg ñu ko ko xeeb bu baax baax ndox bi nekk nii bokkut bokkutoon ndox bi raxas yaram nag foo gis sama logo bi ak ñaari numéro téléphone yi maa ko moom kon beneen ndox bu waaye am bu dul bii bu mu jàpp ni sama ndox ndox bi day dox ci wàllu wërsëg te aussi tamit day ci wàllu bayre bu baax a baax a baax macha allah moom tamit te ndox ubbi kaari tamit encore bokkut ak ndox bi raxas yaram boobu moom daa jeex tàkk moom xam naa war naa ko defaraat fii ak ñetti fan wala ñeenti fan waaye dañ ko bàyyi xel ndox boobu tamit moom dama ko jeexal moom waaw moom dafa jeex tàkk fi ne boo xoolee ci bibliothèque bi ma ko teg nii sax daanaka fi ne moom moom des dara mën a desitu fa lépp a jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk ndox boobu di raxas yaram bokkut ak ndox bi nag moom waaye ndox bi moom des na fi ñett bi nga def des ci ndox bi ñun ñëpp ñoo tolloo woon ñoo fi bari woon parce que matoon na cent et quelque waaye yëpp dem na ba benn ñett bi ndox bi moom ñett ki des ñetti butéel moo ci des incha allah kon su ko defee gars yi bàyyiwaat xel loolu bu baax a baax a baax te xam ne ndox la buy raxas jeex na am na ndox bi ci wàllu ubbi ko lay ndox ak wàllu bayre bayre bu doy war sax waaw boo defee na ko gars yi bàyyi xel moo xam musiciens yi wala footballeur yi wala mbëri làmb yi wala artiste artiste comédien yi et cetera comme mën a doon boko defé inshallah rabbi ma wax la bu ci déggante ma wax la na utiliser ci kàttanu yàlla suñu borom suñu borom tan defar bayra bo xamni walu wàllu mahabba boo xam ni dina la jaxal yow ci sa wàllu bopp incha allah waaye nag nañ ci def attention bu baaxa baax ndax bayra bop mom boo mul rek bu baax ci borom kon su ko defé tamit lool day am importance trop inshallah allah kon su ko defé foofu la ñu daal yëkëté yëkkati jotaay yi jox leen rendez-vous inshallah la ngeen doon kon mooy danañ xalsan di live ci compte bi inshallah rabbi euh lu rombu suba wala lu rombu euh, samedi rek danañ fexé légui di live ak yeen ci compte bi à partir de 21h30 japp 22h30 1h temps wala 1h temps et demi su boobaa nag danañ ko def question réponse inshallah moy ñu commentaire dañ ñu di tontu ci seen commentaire yi bopp pour waxtaan ci ak ñoom buñ bëgg waye nak duñ ci sét duñ ci sét parce que amu fu mëna jaar ba dégg dégg pour sét bu dé sama téléphone loolu du du du day day metti inshallah rabbi waye tamit aussi. Euh, lu ci waay commentaire te xam ko danañu la mën a tontu automatiquement pour waxtaan la à partir de samedi wala lu romb samedi wala balaa samedi ñoo ngi xool daal incha allah dana ci xar samedi live à partir de vingt et une heures demi jàpp vingt deux heures demi wala vingt trois heures maximum. boo defee kon ngeen abonné ci te bàyyi ko xel bu baax te bu live boobu ñëwee ngeen di ko partagé mu gën di yaatu ba ñëpp jot ci ba kenn ku nekk mën cee euh, jotal boppam incha allah kon su ko defee noonu rek la ñu ko baaxee. kon jaa ngeen jëf jërë ngeen jëfati waaye leen di teg seen i gët di dekk seen i nopp ci seen chaîne bi di Gninguène TV ak Gninguène TV kumpa di tàggoo ngeen ci mboolem fànni xam-xam jaa ngeen jëf jërë ngeen jëfati